salaamaaleykum mbokk yéen ñi safoo seetaan Click Dakar 221 yaakaar naa xame ngeen ñu nag ak ñii nga xam ne ñooy euh, ñi nga xam tey ay nitu yàlla lañ muy ay maara yoo xam ne macha allah waaye tey nag dañoo jóge Dakar ñëw fi nga xam ne ah euh, dëkk boo xam ne muy fan mbuur ku ne mbuur nag ne cosaan ku ne mbuur xam ne ah dëgg dëgg kilifa am na fi waaye tey dañoo seet si koo xam ne kenn la ci réew mi waaye kenn la itam ci fii ci goxu mbuur muy Serigne Djibril fay borom tawféex te ñu seet si ko nag muy koo xam ne ah ñànkatu yàlla la koo xam ne ay réew mi yaakaar naa ràññee nañ ko bu baax a baax à travers YouTube bi macha allah muy koo xam ne ah yàlla may na ko ci seet yàlla may na ko ci liggéey liggéey boo mën di am nag ak jafe-jafe boo mën di am rek boo jokkoo ak moom ci numéro bi nga xam mooy daaw ci barre d'écran bi bu ngeen déggee déggoo incha allah dina liggéey li nga bëgg muy sëñ Jibril euh, Faye borom tawféex nekk fii ci mbuur jàmm gën ku ne Mbour nag yaakaar naa ah xam nag fii la soxe ko parce que mbuur kat ah dëkku cosaan la waaye mbuur tam ah di dëkk boo xam ne dëkku ndox la yaakaar naa sëñ Jibril Faye borom tawféex la ñuy tàgga tey waxtaan ak moom ci actualité waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy rëmbe réew mi waaye itam ci li nga xam ne tam mooy seet ak li nga xam ne mooy rab ak jinne seytaane moo bëri ci réew mi tey dañuy dalal sëñ Jibril Faye dañ koy bàyyi mu nuyoo jërë ngeen jëf. Jibril sëñ Jibril nuyu nañ la. fay nañ la bu baax Idaali di wax barkeeb Serigne Saliou. noo ngi ñaanal Sénégal yëpp jàmm di leen ñaanal jàmm yéen it di ñaan tey ñu def émission bu neex ci barkeb Serigne Saliou. jërëjëf barkeb ne ñu def émission bu neex mais sëñ Jibril ñu fekk la fii ci Mbour jàmm gën tey euh, boo doon wax sëñ Jibril euh, kan mooy sëñ Jibril tey euh, adduna bi ak sëñ Jibril kañ la commencé ci dugg ci liggéey bi sëñ Jibril liggéey bi daf ko jëggaani maanaam daf ko doon ci ay maam wala dafa màgg dem xam-xam bi dem jàngi xam-xam wala daf ko doon ci ay maam. waaw di sant yàlla bu baax rek di sant bu baax a baax euh, wàllu ñaan nag mën nañ wax ni biñ ciy dugg ak léegi léegi mu defuk diir euh, yàgg nañoo ñaan te ñi ko xam bariwul amaana ñi ma daan àndal ñoom ñoo ko xamoon defe naa ni bi may commencé di foy fowantoo wàllu ñaan 2006 la. 2006 waaw 2006 boobu. Euh, maa ngi jàng métier fekk euh, fi ma war a dem yëpp dem naa fa euh, teewul bi ma ñëwee may jàng métier dem ba ci biir dem ba ba yor sama bërëbu bopp sax sama place bopp di di di ñaanaale ci biir di liggéeyal ay nit en même temps di leen ñaanal dem ba ci biir ñaan bi ak liggéey bi mënatul ànd parce que ñaan dafa xaw fiir te tolloon naa ci foo xamante ni ba ma toppoon liggéey bi mënoon naa cee tàqaliko ak sama sago ndax wàllu tuur dafa xaw a fiir am na ci loo xamante ni eh, du mën a ànd ak moom euh, moo waral ma ma mujjee ko arrêté daal di féetewoo ci wàllu ñaan bi carrément waaye ñaan moom am na ci loo xamante ni suñ borom moo nu ko defal am ci loo xamante ni ci sunuy maam lañ ko donnee ndax fii may wax ak jaw tey jii boo bëggoon a seetlu boo demee sunu kër sama yaay seetal la wala sama beneen mag bu góor seetal la moo kon ñaan lu ñu lu ñu donn la ci sunuy maam ci ci côté bu nekk ba pare nag jugaat dem sàkkuwaat dajewaat ak tamit ay nitu yàlla yoo xamante ni amaana buñ leen bëggoon gisaat tey jii dootuñu leen mën a gis ndax mën nañ ni bis bañ dajeek ñoom ak fa ñu dajeek ñoom boobu lañ leen ko ci gisaat ba léegi nii te def nañ ci ñun lu bari loo xamante ni lu ñu am ci ñaan wala xam-xam boo xamante ni dogal yàlla moo koy may ab jaam ci kilifa googu leen ko jëlee waaw noonu la demee. Mhm. kon da nga man moom defuma ñaan kese sama métier. Mhm. waaw ndax am na entreprise boo xamante ni rek ay baas moo fa am. matériel sonorisation bari na daal waaw man moom waaw man moom man wax dëgg fa yàlla damay liggéey daal mhm, damay liggéey waaw damay liggéey damay liggéey ñaan fayu ma daal mhm. waaw man ñaan fayu ma mhm. li nga xam ne ay ci ay ma bëggoon waaw lii moom xàmb la yoo xamante ni mhm. waaw xamb la yoo xamante ni képp ku fi sangoo rek am tawféex. Mhm. neuf la mhm. neuf ndaal la yoo xamante ni dama ko donn dama ko donn ci samay maam. fi mu ne boo demoon tey jii fa ma dëkk Kaba foofu li fa nekk ci ay xàmb ëpp na fanweer. waaw ëpp na fanweer. lu ñu donn la te ñi fi mës a ñëw sangoo ñépp ku ci sangu boo génnaatee toog fii di nga xamante ni dina newoon ci yow yëpp dañ na waaw ah, ndax day lu wér daal. Mhm. maanaam ku fi dugg ku eh, rek di nga xam ne macha allah dugg nga ci kër gu baax. Mhm. Mhm. waaw jafe-jafe jafe-jafe boo mën a indi. moom du la toppaat fa nga jëm. waaw parce que am na kaaraange. am na toj liggéey cat. Hmm? xéewal bayre lépp a ngi ci biir daal. waaw buñ la waree tëj kaso sax boo fi sangoo incha allahu rabi kenn du la téye kaso. fii ci jàmm gën waaw wax ma waxatuñ loolu wallaahi laazim doy na waar te mhm. gis dëkk bi dafa jaxasoo macha allah liggéeyante bi euh, defante bi lu bon li mhm. bëri na ci dëkk bi mhm. mais sëriñ yi naxe ëstam bëri na ci dëkk bi kenn ko day jëkk say leget naan la xam yi nii te dañ lay sang mais doo gis résultat benn yoon est-ce que yow loolu la daal souvent nga sang nit mu desiwaat ne waaw man nag wax dëgg fa yàlla loolu <laughs> musuma dal aha musuma daal <laughs> waaw waaw waaw non ñun moom wax dëgg fa yàlla déggoo man la man ñaan fayu ma mhm. <laughs> damay ñaanal nit sax may ko mu dem wala ma ñëw ma jox ko paas mu dem aha loolu lépp dañ koy def waaye euh, ñun amuñu jot sax dóor mhm. boo fi sangoo ci saa si ñun bokkuñu ak sëriñ yi nga xamante ni dañuy liggéeyal nit muy dem man tool naa foo xamante ni si ñaan ñaanatuma yàlla ñaanal nit une semaine te amul eh? résultat une semaine waaw waaw bu soobee yàlla bu dee jàpp jigéen moom ñetti fan laa koy liggéey fi ma toog laay toog liggéey ko na la jàpp maanaam koo soxla ci moom jigéen joo xam da nga ko bëgg mhm. ñetti fan laa koy jàpp ah, bëgg a takk waaw jours trois jours laa koy te du ma la jox dara dam du ma la jox dara dama koy fas rek bàyyi la nga dem doo takk doo naan doo diw fas laa koy def rek waaw damay jox turu kim bëgg a jàpp rek waaw ma ma digal ko waaw ma jàppal la ko ci nu mu gën a gaawee. loolu moom ay seere la ay seere la yoo xamante ni boo génnoon tey jii nii ñu bari dinañ la ci mën a wax. aha maanaam naa si ñaan yàlla foo xamante ni ndox sax bu ma la ko joxee nga dem sa aaju day faju mhm. ndax li ñuy def ndox kese ndax li ñuy def dañ koo sellal bu baax. Mhm. jaamu ci yàlla amay turu yàlla yoo xam ne tarbiyee nañ ko ba mu wuyu suñu. Hmm? Mhm. mais ma bi ak waaw gittax bi moom xam naa dangeen ko fi fekk rek. xiir waaw waaw. lii moom benn mbër laa ko liggéeyal boo xamante ne dafa am combat. Ah? xam naa ne du jar ñuy tudd tur. waaye moom lañ ko liggéeyal euh, pour buy dem signature mu yóbbaale ko samp la tamit buy dem ci làmb ja da koy yóbbaale. incha allahu rabbi waaw bu soobee yàlla. yéeme <laughs> neexee yàlla. Mm-hmm. Euh, euh, mm-hmm. waaw football nag moom loolu suñu borom dimbali nañ ci bu baax moo xam ki nekk bitim réew la moo xam Sénégal fii nii mm-hmm. waaw boobaak léegi daal amaguñ ci defet ci nawetaanu ren yi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax baax ba tey jii léegi rek laataa ngeen di ñëw fekk na ma liggéey match boo xam ne ndar la ndar ba pare waaw maa ngi mhm. jógee léegi maa ngi dégg ngay téléphoné mhm, mhm. ñu lay téléphoné da nga mujj dagg sax seen kii par ndax émission bi tey euh, jibi ñu fekk la fii si jàmm gën macha allah toujours rek euh, nga nekk sëy boo xam ne da nga ne dégg macha allah ba pare fees dell ba pare ne dégg tey euh, macha allah mais tey ki nga xam ne tey dafa am jafe-jafe mooy xam ki nga xamante ne dafa bëgg a nekk président wala mu nekk ministre wala maanaam mu bëgg a kawe fu mu nekk tey ay ñaanam lan lay laaj waaw kooku moom ñu ko mën a liggéeyalee bari na li liñ ko mën a liggéeyalee bari na am na ci ñoo xamante ni nag dañ lay liggéeyal ndax bu fekkee ni ku bëgg cër la ci dara euh, dañ koy xool ci ramli bi ba pare dina am bunt boo xamante ni moom lay taxawal bunt boobu bu taxawalee dinañ xam ne kii gileem mooy faj soxlaam wala nag wala bëy wala xar wala naat waaw ça dépend rek ci nit ki mhm. waaye samp moom képp koo xamante defal nañ la ko bu soobee yàlla di ci am ndam. di am ndam. Mhm. gis fii euh, tuur yi. Mhm. dama tël ci waat mais dafa gis affaire yoo xam ne ay xaw ay couche la xaw ma ay jinne mhm. ay lan la lan euh, wala yow da nga am ay jinne wala ay couche condom wala am li nga xam ne mooy euh, jalang parce que li ah, waaw ñun ay sëti jinne lañ yongu boo déggee ñu naan la yongu. yongu ñun ñoo tax ñu naan yongu. xam nga bari na ñoo xamante ni ñu ngi wax wàllu jinne mm-hmm. waaw gars yi yi waaw kéemaan la <laughs> bari na nag ñoo xamante ni ñu ngi wax waaw yàlla baax na ñoo ngi sant yàlla daal <laughs> ñoo ngi sant yàlla. buñ toog rek lépp day leer. Mm-hmm. dañuy xool ñi nga xam ne ay borom xam-xam la. Mm-hmm. ñu waxtaan pour tëdd ñi nga xam ne tey. ñoo ci war a jëriñoo. askan bi àdduna yëpp. naa dañoo am ay jafe-jafe. boo xam ne macha allah yàlla da ko may. waaw jalaa yi moom dañ ciy liggéey dañ ciy tuur ku ñëw dañuy waxaale ba déggoo rek bu ñu déggoo nga indi liñ la laaj. Ah, jalan day am waaw daa am lu muy laaj jalaa day laaj sàngara day laaj sungufu or day jaar day laaj nen waaw yooyu yëpp lay laaj day laaj bëy mhm, day laaj sax mbaam ba ci xaj da koy laaj waaye ñun duñ ci utiliser xaj en tout cas li nga xamante ni moom la yàlla dagana loolu lépp dinañ ko ci def dañ ko ci utiliser. mais kon Jalla xanaa moo gën a gaaw ci moo gën a gaaw ci affaire waaw moom waaw Jalla moom jooni jooni lay def. mais waaw dañ ci liggéeyal nit. dañ ciy liggéeyal nit lu baree bare. mu laaj mbaam wala xaj nan waaw bu ko jaree ñu def ko. waaw bu ko jaree. waaw aaju doomu aadama pour mu faju lu mu laaj dañ koy def lu baax. day def lu bon day def lu baax waaye ñun yàlla dimbal nañ duñ def lu bon lu baax rek dañuy def ci ñaan gi. ndax sëñ Béthio moo ñu ko waxoon. Mm. moo ñu ci waxoon soññ ji jox ñu ci ndigal wax ñu ci ay wax. Mm-hmm. soxna ay da ñëwaat tamit defaat comme même sos mm-hmm. moo waral duñ ci def lu bon. Mm-hmm. <laughs> waaye buñ ci bëggoon def lu bon du fanaan kuñ ko def du fanaan. Jalla daal moom jooni jooni. waxatuñ loolu. xanaa xamoon ni Jalla bari na sëriñ yoo xamante ni ñu ngi ñu ngi ciy wax di ci wax lu ñaaw. bari na sëriñ yoo xamante ni ci biir réew mi dañ fi ñëw di wut si béjjén yi nga xamante dañ koy defaral sëriñ si ñu di ko yore seeni kër te ci jalan lañ koy defaree. jalan lañ koy defaree. Mhm. a mën nga koo liggéeyal ci waaw boobu moom nag lañ koy liggéeyal rek nag bu ñuul. nag bu ñuul kuk. nag bu ñuul kuk rayal ko ko liggéeyal ko liñ koy liggéeyal mu dem. Mhm. même ci alxuraan mën nañ ci mën nañ ci fal nit ci nu mu gën a gaawee mën nañ ci fal mën nañ ci foole mhm. tey ki nga xam ne euh, jëlee ko fa. wala tey liggéeykat am tukki euh, tukki dëkkoo fu mu dugg rek mhm. waaw wàllu tukki nag comme ni mu ko waxee woon rek man ci aadama laa koy liggéey mhm, ci aadama laa koy liggéey su ma ko liggéeyee ba nuppi nga dem takk ko ci garab danga dem du la laaj ay visa duma la laaj passeport duma laaj dara hmm? damay liggéey li may liggéey def ci sa tur joxoneel dama takk ko ci garab bu soobee yàlla boo demee dañ lay woo su ma neexee am na ndox moo xamante tamit moom laa fiy joxe ndox la boo xam ne bu bu sell la bu rafet waaye bokkut ak ndoxu fii <laughs> ndox la boo xamante ni waaw li may liggéeyal ñoom ñoo ma koy jox ma di ko joxe mhm. ndox bu ndox bu ndox ndox bu yéeme daal mhm, ndox bu yéeme ndox boo xamante ni aajo bépp lay faj aajo doomu aadama bu mu doon ndox bi da koy faj mhm. loo bëgg rek kon daal sëñ ji bi mu ngi fii ci euh, jàmm gën euh, ci ci euh, mbuur képp koo xam ne soxla nga ko rek jafe-jafe boo am rek ci Sénégal ak nekk bitim réew mën nga woote numéro boobu am na li nga xam ne mooy whatsapp boo ko woowee incha allah wax ko sa jafe-jafe ne xoolal ne lii mooy sa saafara ngeen waxtaan sëñ ji bi tey ki nga xam ne tey tey macha allah moo xam artiste la moo xam leneen la mais lépp loo xam ne laal na ko rek maanaam du takk léppam dafa fay mm-hmm. tey muy bayre waaw Bahire moom defe naa ni bari nañ ci ay ay ay secret dañ koy defar waaw Bahire Bahire Bahire waaw ci ku ko mënul. ci ku ko mënul ma am na. yoo xamante ni cuuraay la dañ koy suuroo am na Bahire yoo xamante ni ci sungu fii la nekk. Hmm. su ma la ko jaxasalee jox la ko. waaw suma la ko jaxasalee jox la ko. Ah, <laughs> waaw xam nga <laughs> xam nga maanaam li ngay fekk fii doo ko fekk ci benn sëriñ boo dem. lii man mm, mm, noonu la demee nag. <laughs> <laughs> di dem wuti li nga xam ne mooy sunguf reen parce que ñun suñu maam yi ay reen lañ ñoon faje bu njëkk. mais dafa mel ni kon yow faju maam ba nga yor ba léegi reen ngay jël composé reen yi def ko sunguf macha allah jox leen. waaw cosaan mooy dëgg. Mm-hmm. cosaan mooy dëgg boo ko fi bàyyee rek doo am résultat ci li ngay liggéey mm-hmm. waaw doo ko fi boo ko fi bàyyee. waaw ñun saa su ne ñoo ngi génn ñoo ngi ci àll bi ñoo ngi dem di wuti garab yi di dem di ñëw di ko dëbb di ko defar. ndax moo ëpp barka waaw <laughs> ah, ah, ah. fépp foo xamante ni daal fépp foo xamante ni daal buñ fa demee nit ñi am jàmm mhm. moom dinañ fa dem bu soobee yàlla mhm. ñëw indi ko. tey euh, allah <laughs> euh, dafa ñëw euh, nekk bitim réew ba mu tukkee ba léegi moo xam 5 ans 10 ans mais mënul sax am lu mu dagge bee ñëw parce que fu mu jublu pour liggéey rek vraiment ñu sonal ko fa du am li nga xam mooy liggéey ak problème mu këyit ba ñëw Sénégal. waaw loolu moom xam naa ni bu fekkoon ni yëfi direct la am na woote. waaw nit ñi dinañ dinañ woote ñi nekk bitim réew. dinañ woote am na am am na ci koo xamante ni démb la ñibbi démb. la hmm? delluwaat France. yàlla dogal na képp koo xamante ni buñ ci jokkoyee man la dig ma fekk si fii sama kër gi. Hmm. waaw di nga ñëw ba ci sama kër gi toog fii. loolu moom mbirum baatin lañ ciy liggéey. Hmm. aha gaawu ñoo doxee baatin nag waaye moom lañ ciy liggéeyal nit ñi mhm. waaw ci nu mu gën a gaawee mhm. am na ñit ndomba boo xamante ni mhm. buñ la ko liggéeyalee yow mi nekk bitim réew sa mbir yëpp dina dox tubaab bu la gis da lay yéene alalam yooyu yëpp dañ koy liggéey waaw top yi ba léegi ñu ngi toog ak ki nga xam ne mooy Serigne Djibril Faye borom tawféex xam nga nag temps yi moom euh, li nga xam ne moo lëmbe réew mi muy ñoom maara yi lay wax dama la ci boole parce que sëriñ nga comme ñëpp gis nañ ne coow li bëri na fan yi ci maara yi maara ñas gis nañ ko mook euh, Cheikh Mouhamed Cissé seen tàngasante bi seen werante bi ci ay ojo ba Cheikh Mouhamed Cissé sax ne dafa yor ay lomotif yi ki nga xam ne mooy marañas muy loo xam ne doy na waat trop te marañas xamuñ ko loolu tey ñu war a actualité li nga xam ne tey aussi yow ku la xam-xam na ak am na loo xam ne Ousmane Sonko yaakaar naa Ousmane Sonko itam gis nañ temps yi mu ngi lëmbal li nga xam ne mooy dëkk bi ñu war a waxtaan a yow tey ci lu baree bari ak li nga xam ne mooy actualité dëkk bi sëñ Jibril waaw man moom lan mooy seen euh, ni ma koy waaw man moom am problème mu kenn. lan mooy seen waaw ñoom seen biir ñoo am problème. mais man moom. man moom wax dëgg yàlla man xaritu sëriñ sépp laa. defe naa ni defe naa ni defe naa ni defe naa ni bu bu comme li ma wax sànq rek. man ñaan dama cee dama cee yaatu dama cee laabiir soxoruma ci ci wàllu ñaan. wàllu ñaan. Hmm, waaw xaj na jalousie moo am rek. lan mooy seen problème yéen sëriñ si. seen ngeen bokk ay client wala lan la quoi. waaw xam nga xam nga euh, xam nga ñaan yàlla yombul yombul ndax nit ki moom boo demee bay ñaan yàlla rek war nga am sutura ci lépp waaye jamono ji wàllu ñaan wàllu ñaan des fois sax damay dem ba bëgg cee génn ndax dafa amatul sutura hmm, amatul sutura gars yi dañuy yàqante dañuy waxante lu ñaaw te en général ñi koy wax ñëpp xamuñ dara waaw foofu laa est-ce que ñi nga xam ne ñoo yàq euh, ñaan bi wala ñooy def est-ce que ñooñu euh, ñaan bi seen kër la wala maanaam ñaan bi seen yëf la maanaam dañoo wàll yaan si bokkuñ ci waaw am na ñoo xamante ni dañuy dañuy dem luyee ji kër rek dem dugg fa waaw yor sa ñaari leket yor sa ñetti morsa rek. teg <laughs> ah. waaw loolu moom loolu moom loolu sax loolu sax du dara man am na sëriñ yoo xamante ni bu ñu amee liggéey bu ñu ma woowee ma liggéeyal leen ko. waaw ma liggéeyal leen ko jox leen ñu dem gratuitement. ah parce que parce que ñaan lu ñu bokk la. Mhm. ñaan maanaam yëwënante la. Mhm. waaye nekkul daa nga sante ak toog di ci waxanteelu ñaaw di waxante gis nga defe naa ne sëriñ boo demee ba mën li ngay def. sama moroom sëriñ bu la waxalee loo xamante ni du yoon. da nga koy duma man am na sëriñ boo xamante ni daf ma woo tëkku ma saaga ma yàlla xam na ne dama ko toroxal wallahi naajim dama ko toroxal te jotewuñ dara dama ko toroxal dama ko toroxal ba ñëpp xam ne diw mi ki yee ko toroxal wallahi naajim barke alxuraan waaw dama dama xëy bind sama bind sama alluwa duma ko waaw coow ko xiir yóbbu ko ci àll bi ci guy yi def ko ci xorondom yi yàq ko mm-hmm. carrément amul du nëbbu ma ci dara. doo fi nekk di audience. déedéet du ma def loolu. Mm. est-ce que loolu. Euh, du ma def loolu. Mouhamed euh, Cissé def. Mm-hmm. Mara Niass euh, génn def sorti wax Mara Niass dafa def lii dafa def lii dafa def lii. Mm-hmm. est-ce que loolu yow en tant que sëriñ nan nga ko gisee. non d'accord ma ci d'accord ma ci loolu mu def vraiment aw ma habitude nag di wax ci kenn mais d'accord ma ci. mais borom xam-xam daal day maandu. Mm, borom xam-xam dëgg dëgg dëgg day maandu day yem fi ñu ko yemloo. Mm-hmm. bu lee nit sax doomu aadama boo gësalee sa moroomu doomu adama ayib nëbbal ko ko loolu moo ëpp sutura parce que àdduna moom nit nit rek la mën a doon kenn ku ci nekk suñu borom mën na laa nattu ci ci safaan wa nga sóobu ci te su boobaa it bu la keneen gisee da lay suturaal rek loolu moom d'accord ma ci vraiment d'accord ma ci di leen soññaat ñu gën a booloo waat rek. ñu euh, émission guddi gi euh, toog ak ki nga xam ne mooy Pawlish mbay Pawlish Mbaye di nit di lépp doomu aadama mu toroxal ko ne euh, DJ Yves waroo ma invité di ma booleeg ay dof nga xam ne amuñu benn njëriñ ba tëkk fa Pawlish Mbaye ba ne ko trois jours laa la may nga gis li nga xam ne mooy biddiw bëccëg boo ko gisul ma dagg sama kurus est-ce que en tant que sëriñ boo xam ne ñànkatu yàlla nga war nga def loolu bay takku nit takku nit ba naan ko ma dagg sama kurus ah non moom dafa xamul Pawlish fi mu bokk rek xanaa xamoon ni Pawlish Mbaye man ak moom ñoo bokk lan yow mi sama famille la bokk kooku yongu la ah. surtout yongu la Pawlish Mbaye eh! Pawlish Mbaye nag am nga ndekete Pawlish Mbaye di nga ñëw dinaa la andi fii ci sa mbokk boo xamul muy sëñ Jibril fay surtout yow nga ndekete Pawlish Mbaye ñëw Pawlish Mbaye léegi ndekete yow lii tax kay ñi la ah foog na jàmm gën Pawlish Mbaye kooku moom Pawlish Mbaye ni ngeen bokk kooku mënalu ko dara sama mbokk surtout yongu la surtout yongu ci boppam la la déggéen mooy baayam kon sa la <laughs> eh, sama ndijaay la waa mbuur gii lañ koñ murit police kon kon yow sa ginnaaw kay indi kii eh. du question moom la yor sax waaye damaa xam ni fi ma bokk foofu nit du leen nit mënul leen dara ah, ku leen tëkku sa ku leen tëkku ñu duma la wallaahi la xasim kooku mënul ci moom dara déedéet mënul ci moom dara parce que parce que bu dul dara rek Pawlish Mbaye day bégal nit ñi hmm. xam nga doomu aadama bu fekkee da ngay bégal nit nit da lay gis di bég maanaam loolu rek mënoo ko fay bu la ci yàlla fayee rek beneen affaire la hmm. te doomu aadama kenn du ko tëkku hmm. Mhm. kenn du parce que yow yàlla yow miy tëkkuwaate xamoo xamoo sa ëllëg xamoo sa suba mhm. kenn du ko tëkku waaw moom daal li ma leen di soññaat ñaaxaat nañ gën a dooloo booloo rek doon benn waaw defaraat seen i toogaay ak taalibe mooy lépp mhm. waaw loolu moom Hmm, dañ ciy sante sëñ Bàcco rek lépp lépp moom la hmm, waaw faj moom yàlla dimbali nañ ci waaye loolu rek ndimbal la rek waaw ndimbalul yàlla la ndax man bu ma génnee léegi romb la bu le kay ñaankat la doo ko hmm, parce que man doxewu ma ko waxewu ma ko noonu la demee li nga xam ne mooy rëmbee li nga xam ne mooy lëmbee réew mi na bi yëpp muy euh, diggante ki nga xam ne mooy euh, bambali Seck ak ki nga xam ne benn xale bu jigéen la bu ñuy wax Tida euh, daf ko ëmbal lañu wax euh, Tida dañ daf ko ëmbal pare bañ ko safee fait cinq ans ba lu nekk mu ngi ci am polémique bu nekk mu ngi ci am ñëpp ngi ciy wax ñoom Adamo ku nekk ci monde bi tey en tant que sëriñ lan nga gis ci euh, diggante boobu ak tey lan ngay joxe bu doon conseiller tey. waaw loolu moom xam nga bu fekkoon ne sax loo xamante ni xawuma ci dara. du ci mën a wax waaye lu ma xam la ndax ndaw soosu. 2019 ñëw na fii ginnaaw bi mu amee doom ba pare ñëw na fii ci man. Mhm. Tida uh-huh. bu gisee vidéo bi dina xam ni dëgg rek laay wax ñëw na fii ci man. bi ëmb bi amee ba ba mu dem ba am doom ba pare ñëw na fii ci man. Mhm. te doom ji waa ji moo ko jur. bi muy bi mu koy ëmbal boobu moom amul dara siiwul kenn dégg ko ndaw si bëgg ko te yàlla rek tax moom moo ko ëmbal. Bambaly ci boppam moo ko ëmbal te buñ demoon def test dinañ gis ni lii dëgg la. barke alxuraan bu baax. xam na ma xam na ma bu baax baax ñëw na ba ci man fii wallaahi naa ji bu baax a baax. nan nangu rek te xam ni ndaw si la moo ko dugaloon ci loolu ba mu jox ko boppam loolu am ci. loolu kese la waaw noonu la demee. amul dara. hey Idaly man. bari na bari na loo xamante ni am na ci réew mi dama maandu rek waaw <laughs> ah, dama maandu rek ah, noonu la demee mm-hmm. waaye loolu moom lu wér la lu am la moom moo ko def ci boppam mm-hmm. moo ko def wallaay moo ko def mm-hmm. noonu la demee ah déedéet xam naa ci dara bari na loo xamante ni coow lu am ci réew mii nii ma xam ci dara toog noppi. dootoo toog léeg-léeg hmm. <laughs> na macha allah yaa ngi fi ci hmm. hmm. euh, mais macha allah li ngay gis romb na fi nga xam ne mooy euh, Sénégal sax macha yàlla may na la loo xam ne mën nga toog fii di xam di gis loo xam ne Idali mi toog fii di ko gis tey macha allah parce que yàlla may na la ko tey te doon nga say maam bu baax a baax a baax tey ñu jël ci bi benn actualité boo xam ne mooy euh, Sonko am na loo waxoon Sonko du mos sa nekk président nga waxoon yaakaar naa tey ñu gis Sonko tii na dëkk bi temps yi dugg na sa dëkk dafa mel ni yow fekk si dugg na dëkk fan yi mbuur ak li ko wër yëpp di ko toj ba àdduna yëpp di xam ne Sonko mu ngi toj Macky Sall ñoom ñëpp tiit tey lan nga gis ci Sonko encore. waaw carte dafa dëpp. non carte gi mësul dëpp mësul dëpp comme li ma waxoon rek laay waxaat moom du nekk président ci réew mi fii nii. gisuma ko quoi du question dama koo bañ wala dama koo bëggul wala daf maa doyul mais du ko doon yàlla loolu xam nga dogal yàlla la gis nga kuy koo nit koo xamante ni day gis gis bu sori. ak koo xamante ni fii la toog rek gisul dara bokkuñu aha mais man Ousmane Sonko fi ñu ma ko woon mu ne fa boobu kooku mënul yëngal sax Macky Sall xanaa keneen kay ñëw yëngal Macky Sall du doon moom hmm? te bu sàggantuwul ci ci ci lu gàtt dana am jafe-jafe ci lu gàtt dana am jafe-jafe ah, parce que ki muy ki muy ji ma sóoru mbër la gone du ko daan mhm, gone du ko daan parce que ñiy kurusal Macky Sall rek famille bi nga xamante ni ñoo koy kurusal rek duñu moroomu Ousmane Sonko wala moroomu ku koy ñaanal. Hmm. kon daal mu ngi noonu daal. Hmm, xanaa ndimbalu yàlla dëgg. pënd bi wóor ah, na daal. waaw pënd bi wóor yi wóor yi wóor yi yàgg yàgg day dem toogi rek. waaw ah, xamu koo xamante ni mënoo génn dëkk bi niñ def ba yàq ay kayitam ba mënul génn dëkk bi. Uh-huh. buñ ko defalee noonu du doon président. mënul mënul tukki di. Uh-huh. ku mënul tukki nan ngay nekkee président mënoo génn dëkk bi yow dañ la tënk. Uh-huh. ba pare. néewul koo xamante ni moo gën ci réew mi gis nga buñ fexee lijjantee ba mu doon président ci réew mi Sénégal gépp dinañ ko rëccu. Hmm? wallaahi na azim dinañ ko rëccu bu baax a baax a baax. est-ce que da wax ah, yow. Hmm? wallaahi na azim ci lu ci lu leer nañ. lu wér laa lay wax. Euh, xam nga ne ay am ay dinaa dinaa dégg saaga. <laughs> waaye loolu waaye loolu garaawul. loolu garaawul man ku ma saaga suñ borom dina defal bagage <laughs> waaw loolu moom xamul wax ku ma saaga wala nga wax ma lu ñaaw di nga sa àdduna